bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree ¡Bravo! dee ragal dee yab yàlla la. ceebu ngénte ak ceebu dëj ñoo yem. une seule ñu ne ma ginnaaw raay ay ragal ne la ma ne la ceebu ngénte ceebu ngénte laa ak ceebu dëj ñoo yem lépp la ak len rek ah. bu demaasee ñu xam ne njool mi ñëw na déggoo ma nëpp la ñuy ñëwee nëpp nëpp la ñuy ñëwee. nëpp ah. la ñuy ah, ñëwee. am ndax lan bàyyi ma xel parce que amoon na ma intérêt quoi. eh hmm. amoon nañu intérêt. amul mais li a fekk. ma ko xel sax avec sëñ Babacar si. Eh, pensé que ñu ah, ak a boy moo boy moo moom ngaa ko tamit day bëre. waaw suba day bëre incha allah waaw suñu amuñu amuñu muus sax muus pikin bu génn sax ba sëñ Baas dañuy génn wane wane ñu moom lañu topp. mbër mu ndaw mooy doon mbër ma mais bilaa walaay wa wala déggoo ma adversaire am bi. wa saako yor xaar. kii xoolal ci yoon la ma ne la yow kii ci yoon la nekk kii mënoo koo téye. roi des arènes lay nekk par force incha allahu kooku dañ koy jël pour ñàkk adversaire moo di bëre ah. ah. kooku daa ñàkk adversaire mais nekkul lu ñu bëre moom ngir lamb. tubaabu xeer kooku ñu ne moom xeer. Boy. waaw man yaa xam diwuma lenn lu dul arbitre sifflé génn suñu diggante maak moom ñu jàkkaarloo. bu arbitre bi sifflé. bu arbitre sifflé comme na woon fa woon rek gars yi dama leen fa guddal barki seen Bamba dama leen fa guddal waaw jàpp daan dem ñibbi ñoom feete ko ginnaaw daal ba nee na. tubaabu jot nee na nga yi nekk sa ginnaaw moom moo tax ngay wax mais bu arbitre bi sifflé foo nekk dina la fa fekk lan ngay wax ci loolu. yàlla baax na tubaabu joor moom moo la gën a xam ne jël na avance bi mais rëcc na lu mu ko doon jëlee. taxuloo jóg waaw ndax mosul am adversaire bu mel ni Prince. xaar kay Prince dama gis gars yi wër la Baye Fall yi nekk si ginnaaw di yuuxu ngay wax mais Prince est-ce que ñeme ngaa taxaw tubaabu joor raak ak moom xeex dëggal sa bopp. Baye Fall ne sama ginnaaw lu mu bëgg bëgg naa ndax boobu depuis ba ma nekkee tuut tàng la. ñoom ñuy ñëpp ñun ñëpp c'est la famille ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay waaw di yeewoon ak mbër bi chaque jour di nekk ak mbër bi kon tey yii ñii nii bu ma tourné gis leen sama ginnaaw bu ma nekkoon 10 dama yokk ba 50. mais dëggal sa bopp xeex ak moom. dëggal sama bopp xeex ak moom jàpp ko daan ko ñibbi. Ah, nga ne. dëggal sama bopp dóor ko dóor yi métti jàpp ko daan ko dem ñibbi. waxal ak moom mu lay dégg nee ko tubaabu joor. tubaabu joor da ngay xaar. barki sëñ ba arbitre sifflé di nga rëcc loo doon jëlee avance bi. mu xaar laax yi ñor. <laughs> maa fa nee na da ngay xaar ba laax yi ñor. day xaar laax yi ñor. ba laax yi ñor. sangu ndox la. laax yi ñoragul. sangu mbootu yàqu la. billaay wala kon laax yi ñoragul. jàpp daan laax yi ñoragul. laax yi ñoragul. dama dégg nga ne sànq sa supporters yi doo leen fa guddeel. sama supporters yi du leen fi guddeel. ndax loolu laa leen tàmmal depuis mbabat ba léegi barki sëñ Bamba waaw amaana tamit waaw dama leen sand bu baax di leen gërëm ndax bëccëgal nañ ma heure bu nekk maanaam dund naa ak ñoom te comme lu ma la ko waxee yoon sànq ñun ak ñoom lépp benn la ñoo bokk ndey bokk bàyyi ñu juddoondoo Pikine ku wax presse ne mobilisation presse fan nga toll ci mobilisation taxte bis boobu bis bu rëy waaw dañuy sant yàlla rek di woowaat autorité Pikine ñu ñëw jàpp si waaw ñu ñëw jàpp si bu baax a baax ndax gars yëpp gis nga stade nu muy mel wax dëgg yàlla gars yi dañ may taxaw bu baax a baax dañuy ñëw stade en masse mais tamit des na si côté jàppale bi waaw ñu ngi woo autorité Pikine yëpp ku si mel ni ñoom Isaka Diop ñoom Thierno Ndamba waaw ñoom Modou Gueye waaw di woo gaa yëpp ñu ñoo jàpp si di woo ñoom Waly Ndiaye ak Kouba lan moo tax open press bi nga waroon ko def ginnaaw raay nga indi ko fii gars yi bu ñu dégloon tee rek mu baax day ni déglu rek ndax ñun ñëpp a dégg lan moo tax open press bi nga def déplacé ko indi ko fii. waaw avant tout tamit dañuy nuyuwaat waa koñ bi bu baax a baax ndax yaatal nañ ñu may ñu defee ko fii. xam nga rek ay wax yu sew moo tax mu jëwuñ ko defee ginnaaw raay mais ginnaaw tamit ñun tamit ginnaaw leen lañ dëkk juddoo fa yoroo fa ba toll nii ñu toll waaw yor drapeau ginnaaw raay am na loo xam ne buñ buñ ko soxlaa war nañu ko mën a yombalal waaw ñu ngi leen di taalal loxo bu baax a baax di leen wax ni ñun seeni doom lañ seeni rax lañ waaw tey jii tamit juguñu lenn lu dul ngir défendre suñu couleur gox waaw bu ñu bëggee dara xam nga rek ñu ñu koy yombalal te yàlla rek tax uh-huh. mais li fii ak feefu yëpp benn lépp benn la ndax penees penees yu ñëpp la ndax man doomu Pikine laa uh-huh. mais tey tey dañu fee gis tamit waa jàmm gën gis na nañu waa jàmm gën ñëw fi gis na nañu waa caaro ñëw fi waa pàkk ba ñëpp sa diggante ak ñoom lan la waaw sant yàlla rek ku si nekk ma jox la lu nga moom rek te delloo ma tamit lu moom parce que ñoom ñëpp comme nu ma la koy waxee rek ñoo bokk nday jox baay te ñoom ñëpp ay baay faal lañ waaw di nuy waat waa jàmm gën bu baax di nuy Pogola mu ñëw si waaw nuyu sama mbokk mbër yi ñoom fii sa Sadio eh, ñoom Paa bi Sokh waaw di nuyu gaa yëpp ñoom Valdo ñoom Baye Bara waaw di sant bu baax sama sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam waaw di ko loxo bu baax a baax waaw di nuyu sama gaa yi ku si mel ni ñoom Makhoudio ñoom Assane Djité ak sama nga xam ne ba combat bi ba tey tamit ñu ngi ciy dox di si wax ku si mel ñoom Cissé ñoom Mbodj ko mafia Real bi yëpp Ousseynou ak Assane gaa yëpp Abdou Diop di leen san di leen gërëm waaw mafia France bi tamit sam booy maa leen sant bu baax di leen gërëm ñoom Sidi Dieng Pa Souley Moura Papa Fall booy yëpp ay Touba wax dëgg yàlla dañ si sonn waaw di nuyu booy paax ba bu baax a baax a baax a baax ndax tamit ñoom amuñu lu dul prince te tamit awma lu dul ñoom waaw fu ñu may sendu yàlla na ko suñu borom mottali waaw di nuyu waa sama mbokk njaagoy bu baax a baax di nuyu sama yaay di nuyu sama yaay bu baax a baax waaw waaw loolu dañ koy leb <laughs>